ngi tudd El Hadj Djili Lo man maay coordinateur euh, candidat Mouhamed Boun Abdallah Dionne tey jii damaa ñëw ci école njàng bi nga xam ne bi lay voté def sama devoir de citoyen mooy voté bi ma voté nag je me suis compte que aussi ci biir école bi ndeysaan dugg na bureau de xool bureau de vote yi gis na matériel bi gis na bulletin yi gis nañ nit ñi gis nañ ñuy contrôler élection yi comme waa Sénat sécurité bi aussi mat na fii école njàng amul benn incident depuis suba ba léegi espérons aussi du am benn incident te bu ngoonee aussi nit ñi mën a voté ñu am pourcentage bu élevé bu ëpp bi amoon en donc bi ma ci teg mooy wax sama candidat Mahammed Boun Abdallah Dionne bi nga xam moom lay représenté à Louga démb ci guddi dégg nañ ñu dugal ci réseaux sociaux yi ay image ak ay écrit di wax naan dafa feebar dafa nekk dans le coma ñi naan dañ kaa yóbbu France ñi ni sax décédé na muy lu extraordinaire loo xam ni ñun sax dañoo yéem parce que man woon naa ko mu ne ma boo bëggee ma defal appel vidéo man na ko si si def ko en train de la denn problème la am dafa am problème sëqat médecin bi ni ko président il faut que tu te reposes dong la mu reposé wu man nii am naa depuis démb ndax campagne bi président Macky Sall lañu autorités yi ñëpp ay feebar mais feebar joote wala dara ak dee ku mel def 15 ans 20 ans ci pouvoir ak li mu liggéeyal Sénégal mérite wul à 24 heures des bëgg ko fee tàgge ko rafetul en plus ñu nekk weeru koor ko def ci def jërul ñuy indi ay je pense parce que ñenn ñu pare pour dem élection mais on a appris que ci texte yi dañ wax naan bu benn candidat génne àdduna yàlla yàlla musal ci loolu peut ñu reporter élection yi man ñu foofu la xalaatee mais Mouhamed Boun Dionne il se porte bien dara jotu ko nee na ma El Hadji Djily accrochez-vous je suis derrière vous te loolu mu wax noonu ci lay xëy ci lay gon battre naan campagne espérer naan que à 18 ñu génn gagné au la mais ñu génn jubilé incha